ak rasulu manhajil xadim ginnaaw bi nu ziare sunu kilifa gi Cheikh Muhammadul Muntaqa noo ngi jéggulu tey jéggulul sama rakk ji ndax it xol ba ni la mel weex tàll xalaa ndox dee ball ndox mën naa ball ba noppi nuroog meew waaye mën na bal itam te du nuroog meew du jéggulu xalifa bi sang bi faal ku tedd kee def sang Cheikh Ibra Fall moo tax ku mu meññi nga doonam sang loolu leer na nañ waaw di ngeen di sang kon buy kàddu yu jibee yu ngeen rafetluwul may jégulul ñépp ndax mbubu dañu koy sol mbubbum teranga mi ñu tedd ki solal Mbàkke bu soog faal ñépp la ko solal ko bépp sant bu ne ci réew mi ba solaalee ko tubaab yi nekkul ci réew mi kon nag jéggulu ak jéggale rek moo fi nekk ñoo ngi leen di jéggulu ndax lii mooy li nekk adduna moo baaxoo rek tëradi waaye xol yi set na wicc buñ ko weddi wasalaamu ala man ittaba'a bismillahi wa ala rasulu man hajil xadim ginnaaw bi nu ziare sunu kilifa gi Cheikh Mouhamadoul Mountakha ñoo ngi jéggulu tey jéggalul sama rakk ji ndax it xol ba ni la mel weex tàll xalaa kulli xaalin ndox dee ball ndox mën naa ball ba noppi nuroog meew waaye mën naa ball itam te du nuroog meew du jéggalu xalifa bi sang bi faal su tedd kee def sang Cheikh Ibra Fall moo tax nga doonam sang loolu leer na nañ waaw di ngeen di sang kon buy kàddu yu jibee yu ngeen rafetluwul may jéggulul ñépp ndax mbubb dañu koy sol mbubbum teraanga mi ñu tedd ki solal mbàkkeeg bu soog faal ñépp la ko solal solal ko bépp sant bu ne ci réew mi ba solaaleel ko tubaab yi nekkul ci réew mi kon nag jéggulu ak jéggale rekk moo fi nekk noo leen di jéggulu ndax lii mooy li nekk adduna moo rekk rek tëradi waaye xol yi sedd na wicc buñ ko weddi wasalaamu ala man ittaba'a